di may pour déglu la mooy ëpp que ñu koy may ñoom entre ñoom mm-hmm. mais yow sa comportement naka la war a demee pour conflit de génération boo boo bañ a am mooy c'est la communication c'est le respect wan leen ne man kilifa laa parce que sama maturité am na loo xam ne jomb naa ko def xale yi di koy gis pour mu am fa conflit de génération amoon mm-hmm. mon avis yaa ma dégg donc pour résumer encore une fois conflit de génération dafa nekk loo xam ne pour man nañ ko xoolaat xool naka la ñuy résoudre conflit de génération boobu parce que jeune léegi actuellement boo xoolee ni ñuy doxalee boo xoolee ni ñu yàkkamtee boo xoolee ni ñu pressé peut-être ñële ñoom à leur temps amuñu woon moyen yooyu pour xool comme ni ko père waxee sànq dans les ordinateurs lan moo gën a gaaw mm-hmm. mais je crois que torox toroxal nit kooku du conflit. waaw toroxal nit kooku du conflit de génération. si conflit la de. non toroxal nit je crois que loolu du conflit de génération. toroxal moom bi gis naa génération bu daw di torox. mais da ngay toog si internet. nga gis ñu jël les femmes de 1965 ni ñu solo. Mhm. ñu jël les femmes de 2000 ni ñu solo. Mhm. gars yi ne leen quest que ça vous dit. Mhm. ñu ngi indi benn conflit naka la ñoo ñu daan solo. Mhm. ak léegi naka la ñuy solo. Mhm. une différence. c' est y' a une bu rëy. Mhm. et si exactement nga gis jigéen ñoo xam ne ak barki démb. doom la koy won nii mu taxaw góor de wax ak moom mu sëgg du ko néeg a xool. exactement nga gis léegi góor toog jigéen ñëw uuf ci kawam. amul. waaw ah, lonkaale ko dëgg la. non non ah, non dafa dafa man su may wax foofu conflit boobu mooy. <laughs> peut-être ñi ngi wane. ñële naka lañ daan habillé wu. naka lañ daan habillé wu ñu wane conflit bi léegi. conflit la parce que di nga ne ñee niñ daan solo. c'est ak léegi xale yi naka la ñuy soloo comment. jóge ci jamu dem ci rouge à mm-hmm. temps yooyu da ngay gis. jamu mm-hmm. kër yi da ngay gis maire dañ daan ay peñe. waaw mu ah. boobu ñu daan teg si taal bi. diwal leen karité ne ko riit. lissé ah frisé frisé. waaw frisé. ñoom xam nga sax doon daan frisé. Ah, waaw bi fi James Brown ñëwee. waaw Brown. ñëw na fii démb Diop man maa ngi fa woon. ah ñu bari James Brown est venu ban année. dans les années. ah non j'en ai aucune idée. dans les. jam sa bran bi ni ñëw Demba Diop je ne me rappelle pas xamoo jam eh, eh, eh. ay Sofia fekke nga mais xamoo jam ma ne non Sofia fekke wul jam sa bran xam na jamonoy jam Sofia na fekke na jam sa bran billah bi dem gore jóge fa ñëw jóge gore ñëw Demba Diop di jooy di jooy li ngi daloon fii Sofia nga na fekke na tey la doom mi ci at tey la wàcc ci ma te so walaay Fafa nee naa la ñii. non yow Fafa yow laay wax kii. te boo xoolee. dama la dama la ne moo la. jam suñuy jam suñuy ak amaat c'est vrai te boo xoolee conflit. non toj na toj na toj na jour boobu soirée bi. dem dem ba Diop loolu de. waaw Cross nee na xamul jam. <laughs> non non non non ah, nga ne fàttali ko. non non daf ne ma fan la fi ñëw man. non man waxuma la de dama ne James Brown ñëw di teel nga ne ma man ma mel pas dans ces. non non dama ne je ne me j'ai pas souvenance. j'ai pas souvenance. souvenance kenn na fi James Brown ñëw waaw Michael Jackson bi ñëw fekkee wala. Michael Jackson c'est récent. s'il vous plaît c'est bon non Michael Jackson la fi ñëw. waaw c'est récent loolu. James Brown. James Brown laa la njëkk a wax. bi fii la fi ñëw waaw lay fàttaliku ma man. fàttaliku ma bu ñëwee Dakar loolu mais pour si fàttaliku ko. non non bàyyi ma fàttaliku ko. non tey yéen lu ngeen ma. Sofia génération yi. yow benn gis nga génération yi. génération bu dem. allahu akbar génération bu dem day ñëwaat. Sofia Dia. même boo xoolee dans les habillements génération bu dem day ñëwaat. sañu génération bi ñuy waxtaanee ni xale yi dina disparaitre après beneen génération ñoom dañuy ñëwaat dañuy dëkkaliwaat. Mm-hmm. donc chaque fois moo tax. Euh, il faut bu ñuy wax conflit de génération ñu ñu ñu jaar si côté yëpp pour en moins finir pour trouver solution bi lan la ko merci Safia nga ne jam ci lu mu solo yu kii lay sol eh, xaaral xaaral Safia wala xaaral solal ak liket ak ah. non liket la su kii débardeur la genre la. waaw genre débardeur liket ak chemisam yooyu. frisé karo gi da nga fekkee concert jam sa banaan yow. non fekkee ko. non Sophia moom bàyyi naa ko moom moom Sophia sega moo fekkee jam sa banaan. waaw Sophia fekkoo jam sa banaan moo xam lu jam sa banaan sol ci jamono yooyu. moo xam fan la ca jam sa banaan taxawee woon man tey wàcc naa ci marché.